mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu kàddu gi ñu ngi nuyu ñëpp leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm du rafetlu mbooleem ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel kàddu gi fu nu mën di kaa nekk ci alam bi yëpp ba noppi di rafetlu taxawaay yi nga xam ne nit ñaa ngi koy liggéey ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottali ci sunu liggéey bu am solo bi nga xam ne ñëpp lañ koy defal muy firi gént gént nag nekk loo xam ne yàlla sunu borom moo ko boole jaam bi mooy ku ci nekk am na lum la bëgg misaal ci ay mbir yoo xam ne amaana mu ngi doxee beneen anam boo xam ne soo ci xalaatee ci wàllu gént wax ku mën a firi mu la ko mën nga cee jëlee ay résultats yoo xam ne dana am solo lool loo lay musal ak li lay dimbali. moo tax nag tey ñu ton tànn tomb bu am solo muy tomb bu bari ñu koy jàmbat muy koo xam ne danga gént di xeex. xeex nag mooy xitaal eh, xeex nekk lu am solo nag ci wàllu gént bari na nag lu muy tegtale ci ñenn ñi bokk tak sëriñ bi nga xam dafa yor kurus di zikar ak koo xam ne sikarot loolu day wute ak ci ki ngay xeexal ak ci jamono jagga ngay xeexal nit ak ki ngay xeexal ci jamono jooju xeex nag mooy nit koo xam ne daa jàkkaarloog yow di la dóor nga di ko dóor moo xam mu yor ngàndaay wala nga yor ngàndaay ngeen nii fexe ku nekk di jéem a faagagal sa morom ngeen ni rayante ñu wax xeex euh, gént xeex nag nekk lu am solo muy tomb boo xam ne ñu koy waxtaanee waaye balaa loolu ñu jaajëfal ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel kàddu gi ak ñi nga xam ne tout le temps dañuy abonné wu ci chaîne bi am na ci ñoo xam dañuy télécharge video yi di ko estati wala ñu koy partagé loolu it ñu ngi leen ciy sant bu baax xam ne taxawaay bu am solo boobu ñu ngi ñaan yàlla defal leen tawféex ak mbooleem ñi nga xam ne ay soppe lañ di bàyyi xel kàdd yi fu mu mën di kaa nekk di leen sant ñëpp ñu ngi jotal nuyoo yooyu ñaane yëpp ngeeg si kon yéen tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan suñu borom defal leen ñu tawfeex defal ñu ko kon ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy abonné wu ak ñi nga xam ne dañuy partagé vidéo yi kon ala kulli xaalin tey dañoo fas yéene dikk ci gént euh, di xeex ak nit ki su fekkee ne koo xam da ngay listixaar lu aju ci wàllu place ngay commerce. ngay ñaan yàlla man la ba xam baax na baaxul nga gént di xeex ak koo xam ne sa mag la wala sa rakk loolu dañ lay xamal ni li ngay dugg baaxut ci yow ba ci toppaat tamit danay wane ni bu dee commerce la mën nga cee yàqule wala nga daanu ci daanu metti boo xam ne sa alal mën nga ko cee perte ngay tegtal ak ñàkk ak gàllankoor yoo xam ne am na ci euh, bu fekkente ne nag koo xam ne euh, ngay wàcc yoon tukki wala ngay dugg ci projet ci dara nga gént di xeex ak mbooloo te yëg nga ni mbooloo mi ñoo ñoom nga xeexal ñu duma la duma yu metti ah, loolu it baaxut ci projet ci nit ki dañ koy xamal ni loolu muy dugg bu ci duggee mën na cee am jafe-jafe mën na cee am gàllankoor te nekkut loo xam ne gën na ci ay mbiram ala kulli xaalin ba tey it koo xam ne eh, daa gént di xeex ak kum amal jafe-jafe danay doon ñaar nag ben amna ci ño xamni ak jiboo la sen diggante koku ñi xeexal ta fekk na gudd yoy dañu am ak mom problème ñi ak go nar na am sen diggante wala ak déggoo go xam dana am sen diggante batay danay tegtale ni koku man nay nekk ci ay pexé di jima wajal wajal wala di jima galankor ci ay mbiram loolu danay tegtale ngay gënt di xeex ak ko xam da nga am problème ba it dafa am mbokuma faatu koo xam ne yaayam daa faatu wala baayam mu gént di xeex ak moom loolu it danay dog ñaar ci wàllu tegtal benn jëmmi kooku lim nekk guddi yooyu di ko def nekk na loo xam ne waajuram boobu faatu gërëmu ko bi ci desaa tamit danay wane ne mu ngi waaj a dugg ñaawteef boo xam ne nekkul lu yàlla gërëm loolu danay wane ni ngay gént di xeex ak sa waajur woo xam ne daa faatu waaye nag tegtal bu am solo muy képp koo xam ne yàlla natt na la sa waajur faatu même bur daal jullit bu ci nekk war ngay moytu di def mbaa di wax lu amul njariñ rawatina koo xam ne sa waajur daa faatu moo xam sa yaay wala sa baay faatu ngay def lu defut ndax dañuy wax ne woy faatu yëpp fiñ nekk diggante mook àddina jàppal ne vitri la vitri mooy ki nekk ci biir mu ngi gis waaye ki nekk ci biti du gis te yàlla may na leen defal na leen ñi gis li xew ci àddina di fi xam li fi xew loolu yàlla sunu borom moo leen ko defal kon képp koo xam ne am nga yaay wala baay mu faatu yëgal ne la ngay def mbaa la ngay wax la ngay dugg yëgal ne dara ëmp ko ci moo waral bu ëllëgee